Sif ban jàngat nga ciy def est-ce que nekk na lu la bett. xam nga jàngat bi ma ciy def déjà ça été une suite logique par rapport au présidentiel. Ouais. voilà donc euh, mu nekk aussi une une magnifique victoire mm-hmm. mu nekk une magnifique victoire. mu nekk aussi une détermination du peuple sénégalais parce que c'est le peuple sénégalais qui est déterminé à accompagner le président Diomaye. Mm-hmm. et son régime. mais aussi Ousmane Sonko pourquoi parce que Sénégal même dans la tradition dans la tradition oui d'habitude euh, à chaque fois qu'on vers des élections présidentielles hmm. gis nga sénégalais yi bu ñu la joxee réew mi à chaque fois dañu lay jox assemblée nationale oui sénégalais d'habitude du joxe bopp ba pare rocc la làmmiñ hmm. donc c'est un peuple qui est très mûr c'est un peuple qui est en avance même oui. sur les politiques aujourd'hui le Sénégal Hmm. sénégalais yi boo xoolee ñoo gën a sax que les acteurs politiques parce que nit doo ko fal ba pare di ko sal hmm. comprendre nga hmm. nit doo ko jiital ba pare di ko fakasal donc les sénégalais ont été cohérents avec eux-mêmes ils ont choisi Diomaye qui fait partie de PASTEF ou qui faisait partie de PASTEF vu qu'une fois élu à la présidence de la République il a démissionné mais aujourd'hui les sénégalais avaient compris l'enjeu des élections mhm. xamul lu tax lu tax tey jii bu fekkoon euh, sénégalais yi joxuñu Sonko la majorité mais cinq ans yu ñu jëm Sénégal est-ce que ñun duñu mujjee lekk suuf ah bon mais dara du dox les opposants tey jii bu ñu sañoon réew mi dara du fi dox les opposants tey jii bu ñu sañoon mm. Diomaye et le Pastef ñoom dañuy échoué mais les Sénégalais ils ont pris leur destin en mais ok. Hmm. ñoom ñoo fal Diomaye ñoom ñoo koy accompagner ñoom ñoo fal Ousmane Sonko ñoom ñoo koy accompagner donc ça a été une victoire de maturité victoire de maturité. Hmm. xam ne sénégalais yi bu ñu ànd ak yow ànd nañoo ak yow. donc aujourd'hui je salue la maturité du peuple sénégalais. mais aussi je salue la bravoure et le dynamisme de monsieur Ousmane Sonko. Hmm. parce que il l'a beaucoup mérité. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié malgré vents et marées oui. et qui a subi tous les coups venant de l'opposition mm -hmm. ou venant du pouvoir de l'ancien régime oui. et qui a su résister. Mais aujourd'hui, yàlla jox na ko ndam. Mhm. yàlla jox na ko dëgg. donc vraiment c'est quelqu'un à saluer malgré toutes les difficultés qu'il a endurées. donc da nga bokk gis-gis ñu jàpp ne peut-être victoire bi. Euh, ci entretien am mën nañu jàpp ne victoire Ousmane Sonko la bu ñu xoolee fu mu jot a jaar yëpp. bon victoire Ousmane Sonko la à coup sûr. mais victoire aussi peuple sénégalais la. Mm. parce que Ousmane sonk a été vraiment. protégé par le peuple sénégalais. Il a toujours été accompagné par le peuple sénégalais. Mm-hmm. Et donc je di que Ousmane Sonko mooy Sénégal Sénégal moom mooy Ousmane mm-hmm. Sonko Diomaye mooy Sénégal donc Sénégal mooy Diomaye. Mm-hmm. Donc ça a été une famille yoo xamante ne nii ils toujours accompagné. Et vraiment je di vraiment un grand bravoure à lui parce que il l'a mérité aussi. D'accord. bu ñu gisee ni nga jàngatee tout à résultat yi gis mën nañ jàpp ne bett la. mais bu ñu liiree un tout petit peu ni doon euh, sphère politique bi. doon dégagé bett na ma ci ban côté côté Dakar bett na ma. ok parce que j'avais trop peur. Mmh. avec l'intercoalition au niveau de Dakar. oui c'était pas évident pour être euh, vraiment honnête avec moi-même moi je m'attendais pas à une euh, si magnifique victoire. dans la région de Dakar da nga jàppoon ne Pastef dafay ña daf mën na ñàkk Dakar. wala mën na ci am jafe-jafe na ñàkk comme mun na bañ a ñàkk. donc il y avait beaucoup d'enjeux quoi oui. à un moment pour être sûr quoi hmm. man personnellement je croyais pas à une si belle victoire am naa ci mbetteel kon da nga ça a été une jàpp ne peut-être ñu doon xeeb intercoalition bi hmm. yow nekkul woon sa cas non man xeebuma dara hmm. parce que dans la vie dañ ne nit euh, nga nga xeeb euh, mooy étincelle ferñeent waaw ferñeent ah, mu lakk sa sa daay sa daay étincelle doo ko xeeb parce que étincelle moom mooy nekk daay. donc j'avais une très grande considération parce que en élection il toujours des surprises. Hmm. boo xoolee am na ñoo xamante ne ni yaakaaroo woon ni dinañ jàll. am na ñoo xamante ni yaakaaroo woon ni. déjà taux faible bi ñu am. Hmm. dinañ ko am donc à chaque fois il faut peser le pour et le contre. Mm. ne pas minimiser quoi que ce soit en élection. parce que wóorut. au de intercoalition bi ban coalition moo la gën a bett ci ni mun na melo entre sàmm sa kàddu ak euh, jàmm ak njëriñ même takk wàllu bu président mag Sall. bon jàmmax ak njëriñ sama vraiment décevoir na ma. Hmm. bon bett quoi mais pas bett en tant que déception personnelle. man su ma sañoon ñoom ñëpp dañuy ndeeteelu parce que man fi ma far rek laay far ah. man bu ma fareex yow damay ñaan pour nga am donte en politique. mënuñoo am 100 pour cent. mais au moins ñu am 99 pour cent. je croyais que plus ou moins que Amadou Ba dina am lu ëpp loolu. Hmm. je croyais que Taxawu aussi dina am lu ëpp loolu. et je croyais également que. Euh, sàmm sa sàmm sa kàddu aussi dinañ am lu ëpp loolu. Hmm. mais lii daam dafay am lu muy montrer par rapport au au peuple sénégalais. Hmm. pour montrer que le Sénégal et les Sénégalais. Oui. ils ont ils en phase de tourner la page de l'ancien ou des anciens politiques quoi. maanaam système bi day la classe politique. la hmm. classe euh, la la la les politiciens classiques je veux dire. ok sénégalais yi dañoo nekk ci beneen élan dañoo nekk ci beneen maturité sénégalais yi dañu bëgg dund leneen. Hmm. Ousmane Sonko da leen ko proposé. dig leen ko xale yi gëm ko accompagner ko. exactement yaa ngi comprendre. Oui. donc ce qui veut dire que y a une nouvelle ère politique au Sénégal. Mm. et cette nouvelle ère et cette nouvelle classe politique sénégalaise. à commencer avec l'avènement d'Ousmane Sonko. Mm. voilà Sénégal foofu la toll. Hmm. bu fekkente ni nga ko dessiné noonu la amee c'est-à-dire dañu bëgg yóbbu à la retraite bu ko mënee waxee noonu euh, ancienne classe politique bi. tey mën nañu xaar ban xeetu opposition la Ousmane Sonko war a mën a am. d'autant plus que ñi ñu gënoon a yaakaar dem nañu peser seen bopp ci législative yi mais mujjul jàll notamment sàmm sa kàddu bi nga xam ne essentiellement ñi ko composé bi lañ écoute hein, hmm. pour dire bon genre ou opposition oui. le Ousmane Sonko Diomaye la nouvelle classe politique nar am mm. c'est un peu être dans les secrets de Dieu oui. mais plus ou moins je peux donner mon humble idée quoi donc pensant que la génération de Barthélémy Diaz par exemple parce que on est en phase d'une d'une d'une opposition générationnelle hmm. man loolu laa jën a yaakaar et cette opposition générationnelle oui. n'a pas le poids face au face au régime mm. ils n'ont pas le poids face à Sonko te élection yi ça m'a permis de découvrir que Sonko c'est ah, un génie c'est vraiment un génie politique mm. Sonko c'est un génie phénomène fan la la gën a marqué ci ci ci élection yi ba nga jàpp ne génie politique la mais ñëpp la duma il a battu tout le monde gars yi intercoalition pour sot ko mu jàpp leen ñoom ñëpp duma Ce qui veut dire que je est avec lui. Ce qu'on appelle avoir la, la visite de, de l'idée mm. avec grand I. Oui. Je la visite de Dieu. Je pense que c'est Hegel qui le di Dis nga hmm. nee na jamono bu ñëwee yàlla namm dara. day ñëw gis rasul. dugg rasul ba mu jeex tàkk lépp lu rasul laal day nekk jamono lépp lu mu laal day dox képp ku ko song da ngay daanu. Hmm. donc ça c'est spirituel Ousmane Sonko c'est un phénomène que Dieu a. mis au Sénégal en fait. Hmm. da koo teg Sénégal. donc mu nekk loo xamante ni c'est spirituel. ça dépasse l'entendement et ça dépasse la vision. donc au-delà de l'homme politique bu mu nekk. mën nañu am benn beneen enseignement buñ ci tirer. côté wow. spiritualité non c'est aussi. spirituel Ousmane Sonko léppam c'est spirituel. Mm. ça dépasse sa personne. ça dépasse son être. oui. ça dépasse la raison il y a personne qui peut expliquer mais Sonko ce phénomène là qu'est-ce y a il y personne qui peut expliquer mm. ça c'est en fait kooku mooy yàlla yàlla bu nammee dara moom mooy créer situation yi mm. moom mooy teg nit puus ko dooleel ko ok boo jëlee ponkal bu doy ni Macky Sall mm-hmm. en en coalition avec le PDS nga jël Amadou Ba mm avec ses coalitions nga jël ñoom Barthélémy Dias sàmm sa kàddu hmm. ñoom Bougane non mais attends ñu defaat beneen intercoalition ci seen biir mais écoute <laughs> c'est grave Sonko nañ ko ñaanal hmm. ñaanal ñaanal sama leader Aminata hmm. yàlla gunge leen may leen ndam pour le bénéfice de tout le Sénégal et pour le bénéfice de toute l'Afrique Parce que qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est un symbole de démocratie. Mmh. C'est un symbole de paix et c'est un, exemple à travers le monde. Organiser élection transparente. ñëpp nangu ci ngoon si ñëpp jot élection yi ñëpp ñëpp jot résultat élection yi. Mm-hmm. le lendemain lundi ñëpp dem liggéey dem xëy. saa Sénégal loolooy Sénégal. Mm-hmm. donc cette tradition là ça doit servir d'exemple au monde. entier oui. pour ne pas se limiter contrairement en en Afrique seulement. d'accord tout aussi yaa ngi wax ci côté organisation.